original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew ku nekk ci réew mi xam na débiteri le mbote 1 chez Papis bu Serigne Saliou numéro téléphone am di 77 036 50 88 wala fixe ba di 33 822 13 88 ndaxte nag débiteri la mbote 1 Médina rue 11 angle 8 ñëpp ko bëgg a toppandoo ñi nekk ci biir Facebook bi naan ñoom ñooy le mbote te moom moo créé markam gën fi safle dibi loolu dafa leer débiteri le mbote 1 méchoui sur commande grillade sur papier pigeon moo ci mën poulet moo ci ci mën dibi bu ñu saaf yëfam la méchoui sur commande wala possibilité vente détail débiteri la mbote un papis mu sëriñ saaliwu mi ngi nekk fii ci Médina rue 11 angle 8 dafa am ñoo xam ne dañ koy piraté naan ñoom la nekk ci Facebook bi di détourner clients yi gars yi wàcc leen la mbote bàyyi leen papis bàyyi leen papis borom méchoui borom dibi saaf numéro bi rek la am 77 036 50 88 wala 33 822 13 88 fii la safe débiteri beauté, on est ensemble. Ça ay ja Aliou mi ngi noonu ndeysaan nee naa leen tey ñu ngi fii buntu kër ki nga xamante ni mooy sunu papa Fallaye Balde ku ne xam na ne la 30 Pokola Balde nga noonu di génn. ku na xam na ne la 30 incha allah ci la Gris Bordeaux ak Ama war a jàkkaarloo foofee ci arène nationale Albourakh Events taxawal ko ki nga xamante ni mbokk yi mooy Ama Baldé war a def open press am tey ci Alsan Jigo Pokola daan na mu bëre daan na mu bëre ndeysaan ma ngay bërentu na ko gars yi jox avance ma nga noonu ma nga noonu Aliou gis nga mbooloo mi ña nga jongooru buntu kër ga oto baa nga noonu taxaw ci la Ama Baldé war a yéeg war a wutali Alsaan Jigo waaye keroog ngoonug la 30 yaakaar naa ni fii foo sànni mbaatu mu tag xola bay laa ma nga noonu di génn di raq ci Pape Sarr ndeysaan ndeysaan xola paata ca kaw sol na faaru mbaam ma nga moog turoon dooja balañ dugg nanu non noonu tëj nañu buntu kër ga ku ci bokkul doo fa dugg kër gi ku ci bokkul doo fa dugg waaye yaakaar naan bolo mii ñu gis fii ma nekk Alassane Djigo ko ëpp. ndeysaan ndeysaan Ama Baldé léegi mu génn Aliou Ama Baldé léegi mu génn Ama Baldé léegi mu génn. moo nga noonu nee naa leen Ama Baldé léegi mu génn. gaa nga noonu jongooru buntu kër ga. di xaar ndeysaan ndeysaan xoolal Grand Tidiane Jules Baldé nga noonu di génn ma nga solob lu yëre bu ñuul sol gis nga ko yëkkati na loxo ya jël njëllug sëñ Fallou ga ràngoo ko moom Jules Baldé saan ndeysaan saan naa la tey dafa mel ni tey la làmb ji Aliou ma ngay dem moom silbalde xool ko ma ngay dem ma ngay dem moom Jules Baldé ma nga noonu ndeysaan Aliou Aliou làmba ngi noonu làmba ngi noonu ndeysaan làmb ji combat bu nara a doy waar la ndax ñoom ñaar ñëpp ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux ba mu mujjee am ndam Pikine la ko amee woon digganteem ak ndaw Ndao Tyson waaye Ama Baldé ba mu mujjee am ndam fële ca Fass la ko amee woon diggante ak Papa Sow bala ñëw bala ña nga ca kaw taxaw di opérer di xool ñi war a dugg ak ñi warta dugg ak bëgg Ama moom Pathé balde moo nga noonu bu Ama amee bis du lekk du naan du nelaw ndax bëgg nga xamante ni bëgg na ko ko mu ngoog ndeysaan saan Aliou xale yaa nga noonu Pathé Baldé ko tudd Aliou borom ñaari jaas yi waaye Aliou mi ñaari socc sax yoru ko loolu bañ koy wax ali mu mag maa taxoon ñuy wax Seydina Aliyin ndeysaan ma nga noonu sekk nga noonu borom tiktok bi lu am tiktok ko gënal koo koy sekk borom jàmm gën waaye mbooloo mi Aliou doy na war la 30 fii num nar a mel hop la 30 fii num nar a mel waaye dama bëgg ñu yokk li nga xamante ni mooy sécurité bi ndax jàmm ci la lépp xaj ndeysaan ndeysaan moo noonu borom gunaas a ngoog ak a baax kii bëgg ama borom seeraas ndeysaan gis nga ko noonu ma nga sol tisatub amaam taxaw ci bunt ba nee naa la day day visionné ndeysaan ndeysaan ma nga noonu taxaw ma nga jógee Medina Gunaas waaye Ama rek lay topp ma nga noonu ma nga noonu nee leen làmb ji bu leen fàtte la 30 la foofee ci arène nationale Albourakh Events moo ko woote ñu boole ci ay xale yoo xamante ne ay xale yoo ama am mbooloo lan macha allah ndax yaakaar naan Papa Boy Djiné war na fa jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy Tafa Gueye numéro 2. waaye Papa baari baari war na fa jàkkaarloog bu Siteu waaye mbokk yi bu leen fàtte ndigal war na fa jàkkaarloog bu laal gàkku 2 wala gàkku 2 ak bu laal ndigal war faa jàkkaarloog ki nga xamante ni mooy armée benn barak bala ñaa ngi noonu. balañ bu ndaw turandoo balañ bu mag ndeysaan waaye Ada Fass ak guy gi war nañ fa jàkkaarloo ñoom it ku xam guy gi ñu tuddee woon ko le roi du simpi waaye mi ngi daje xale boo xamante ni nii mbokk yi muy Ada Fass nee naa leen mbooloom foo ko natt weesu na ko bañ nañ ko ba aada ndakaaru lañ koy wax ndeysaan ndeysaan non noonu ndeysaan nee na leen ba tey ñu ngi fii ci buntu kër Ama mu war a dem gaaya nga noonu ndeysaan leng sa nga noonu doomi ndey Ama la ñu naan bu Ama amee bis du lekk du naan moom du nelaw lengs lengs bii ko paako ndeysaan xolama journaliste yi ñu ngay waxtaan Fallou ak Bamba Thiam waaye mbooloo mi ceet tët tët tët tët Alsaan Djigo num nar a mel Alsaan Djigo num nar a mel waaye Ama léegi mu génn de Aliou Ama Balde léegi mu génn paate nga noonu taxaw ca buntu kër ga boo ko gisee xam ne ama soreetul kon boo gisee paate xam ne ama soreetul saan ndaysaan saan nga noonu moom Pathé Baldé am na lu muy discuter moom it soo pop pop pop leen forme bi nga xamante ni moom la ama yor waa Pikine nee na nu doy na leen xola Pathé am na lu muy seere ndeysaan ma nga noonu ndeysaan ma ngay duggaat moom Pathé Baldé a ah, maa ngi waaj génn xoolal ma Cheikh Mara Cheikh Mara ngi noonu boo ko gisee xam ne Ama soreetul moom seex Mara bëri na loo xamante ni ci Ama moom mii moo ko yor ma nga noonu taxaw ca wetu oto ba moom Cheikh Mara père Abdou Baaxu ma nga noonu di génn grand Jibi Gueye ñi boo leen gisee xamal ni Ama soreetul wop pop pop xoolal ma ànd ba moo nga noonu Jibi Karim ma ko yor Jibi Karim mii ngay gis yor ànd bi moo duggoon keroog ca kéew ba Ama Balde gi ak ak Modou xool ko xoola Jibi ma ngay dem ak ànd ba fu mu jëm. Djiby Karim fu jëm ak ànd wi Aliou day cuuraay wala lu muy def ma nga noonu moom Djiby Karim reena Djiby Karim ma nga noonu ndaysaan ndaysaan mbokk ndey koy jur Kumba Baldé nga noonu taxaw moom it yaayu Pokola hop hop hop hop hop sa pii paako léegi mu génn Ama Baldé gaa yaa ngay xàll Aliou fii daal jàmm laa fi gis kenn du la xëpp ndox kenn du la buux kenn du la joggi waaye waa kër gi yàlla na ma leen yàlla fayal grand Malick ma koy nuyu di ko siyaar doomu ndey Paate Balde la moo ñu yéegal ca kaw nañu liggéey leen naar ba kenn laal leen kenn du moom grand Malick bégg nañ ko siyaar ko jox ko wàcc waayam ak sunu maam booy bi nga xamante ni mu ngi ci kër gi ak képp koo xamante rek yaa fi yeewoo yaakaar naa ni lii yombul bu la neexoon tey ji duñ fi yéeg ma nga noonu ma nga noonu ah masal ma noonu ah, ngi noonu di génn ndeysaan leng sa pii ko borom ndel bi gaa yaa nga noonu xolal ma Pathé Baldé Ama ah, Baldé ngi génn war a wutali stade Alassane Djigo ndeysaan ndeysaan Ama Baldé ngi noonu di génn Ama Baldé ngi noonu di génn Ama Baldé ngi noonu gaay yi sotti nañu ndox xoolal Ama ma nga takk fulaar Aliou ma nga takk fulaar bu weex ca boppa ba sol yére boo xamante ne ña ngi ca def la ko AS Pikine wala maya AS Pikine gaay yaa yëngal gaa ya ngay waxtaan xolama Jacob Baldé xale yaa ngay way naan Ama yee ayu déglul ma loolu hop hop noonu xëcc na lenk wala joxe na soow ma yëngal loxo ya Jacob a nga ca wetam ña xàll ama jox nan ko ndox mu ñaan ca saraxe ko mooy ba ñang def Serigne Saliou jox nan ko biteelu biri del ba moom Ama Baldé da koy naan da koy sangoom da koy saraxe ñaan na ci soxlaam joxe joxe waat na beneen xoolal yaay ja Aliou yaay ja ngay wax ak moom mu nga yorob satala ndeysaan ndeysaan ndeysaan oh moment yi moment yi doy war la ma nga noonu doomu lebu beeg pël bi wari paata balde a ah, maa nga noonu ndeysaan xale yaa ngay dem di ko jiitu ji ma nga noonu ma ngay dox ibi oto ba moom Ama Baldé ma ngi cay xal xalal nan ko mu dugg dugg na ca oto ba moom Ama xoola xale yi na ñuy demee xoola lii la yo xoola sa kopp ndeysaan mbooloo maa ngay dem xoola borom fas yi xoola ful bi Aliou Aliou gis nga lii oxo ma noonu oto ba léegi mu départ Jacob Baldé nga noonu ca kaw oto ba Aliou xoolal Jacob fa mu toog ak bëgg Ama ndeysaan ak leng ñoo ne ca kaw oto ba di ko surveiller ku ci bokkul doo ci yéeg sareet ya topp seen ganaaw ak moto ya ay ca mbokk téléspectateurs yi Baol TV loolu la leen indiloon tey ci départu Ama ma noonu